Mamady nuyu naa la. sëñ naa la fay naa la su ma la siibee waa tey lu la indi fi. yow demb rek yow. waaw démb mais tey ak démb bokkul démb compétition la tey. li la fi indi moo ma fi indi. man damaa ñëw ngir liggéey si ci làmb. man damaa ñëw dundal si sama kii sama xol. noo xam nga làmb mooy sa sama sama kii. Hmm. waaw yow da ngaa ñëw liggéey si. làmb ci sa deret la bokk liggéey man tamit damaa ñëw kii si. tey bëri woo yow boo takkee ngemb. waaw Mamady Ndiaye daa ñëw pour liggéey si mais Mamady Ndiaye mu sañ sa ñëw parewul pour liggéey. xanaa namoo ma de démb rek lañ gisee. non dama du doyal yow amateur sax duñ doyal ci yow suñ sañoon chaque dimanche nga dóor bi Mamady lan moo tax doo bëri. ah laaj naa la ko de combat laa bëgg de bu doon suba suba su sax pare naa. kan jël parce que booy yi koo ci wax. dina de sama tàngoo bari na fi kat ah bari nañ fi kay. ma rek. ah du lim du lim. déggoo déggoo li olof di wax nee na boo limee rek da ngay juum. doo jum mais da dul matal. waaw boo matal boo matalul rek xam nga ni da ngaa jum. jarul lim kay yow xam nga sama adversaire yi sax. am pagaay agogo amul mënuñu jeex. te man bañu ma ku bëgg a man rek bëgg naa bërek moom. waaw. bëgg a dugg. ah foo gën fuñ ma dugga fu ma yàlla dugga ma la tuddalee yaraax am nga am fa adversaire yaraax waaw yaraax am pagaay kan ak kan mbar yan mbarafane xam nga leen waaw caatu yaraax nga fa ma nga fa ak kan ak Moussa Ndoye ak kan loo soodo ak Moussa Ndoye waaw waaw waaw ñoom ñëpp combat la Ndoye yaa ko tudd mais dangaa bañ dangaa tudd Moussa Ndoye ñeme ak yaraax ñu bëre moo tax ngeen bëre mu am nu mu nan la demee woon moo ma daanoon léegi nag lu ma bëgg. ah bu yàlla defee ñu bëri ñu bëriwaat rek. non boo ñaanee revanche naa koo dégg may la revanche. mos nga gis loolu. mbër yi loolu mooy seen défaut. da ngay nit nga daan ko dootoo nangoo bëreti ak moom. nañu bëre nañu bëre gis nga suñu paa yi suñu papa yi. Hmm. dañ doon am seen palmarès ci komba ay ay cent trente six. non yaa ngi dégg cent trente six combat. ñun ñi boo bëree da ngay def ay quatre ans dootoo bëree waaw loolu la quoi te loolu du dara mbëri ñooy dawante dawante seen biir rek waaw.